tabarakallahu séminariste yi jëloon nañu benn pause vendredi samedi jël delsi nañ ci centre bi nga xam ne mooy centre ba lañ tuddee Abdou Diouf président mag yi daal di ñu koy abal yal na ko yàlla yokk wér abal na nu ko te joxewuñ ci dara wax dëgg yàlla am ndax nee na ndaw ñi dañ koo yitteel te kuy waxtaani lu jëm ci ndaw ñi jàpp na ne moom ngay dimbali fii itam ci séminaire bi amul couleur parti yëpp séet naa leen fi wala boog ñu bari daayira ak association yi man daal ndaw daal boo nu ñu yitteel te séet naa leen ci ci centre bi tabarakallahu monsieur le président jërëjëf waaye yéen ndaw ñeeg parti yeeg yëpp rek jërëjëf séminaire bi dama nekkoon ci discours d'ouverture bi ma noppee ñu defoon ko ñetti atelier <coughs> ñetti atelier yooyu benn bi mooy atelier bi nga tudd kulliyatu taxyir deuxième atelier bi tudd aqaidiyatu taxyir troisième atelier bi tudd insaniyatu taxyir ñetti atelier lañ ko def séminariste yi ku ci nekk bokk ci groupe am na xale yoo xam ne seen seen euh, maanaam fi seen xam-xam jëm boog laa bëgg a wax seen compétence merci mooy ñoom ñu liggéey ci kuliyatu taxyir kuliyatu taxyir mooy coppat gi nga xam ne ndaw ñi bëgg nañ koo def ba ñu demee ba dellusi seen rapporteur bi mu ñëwee daf ñu wan nañu moom ñoom waa atelier boobu gis nañu ne changement bi du dañuy changer fii bàyyi fee wala ñu changer fee bàyyi fii ne loolu du luy sotti dañuy boole lépp soppi ko loolu ñu tuddee kuliyatu taxyir ñu ne li jëm ci al insaan yi mu dig nite ñu soppi yañ ci war a soppi yépp soppi goo xam ne du doon soppi dabb daaxe lu jëm ci wàllu ijtimaa yi muy social dafa naa social ku ne xam na ne ci pinc mi changement war nañ ci am ñu soppi ko mu doxi weneen doxin wu bokkut bi muy dox nii ndax pénc mi ni muy doxi nii changement bu ci amut mën naa ñàkk jig pénc mi mën nañoo ñàkk jig rapporteur bi mooy wax mu ne naka noonu al iqtisaad yi lu jël ci wàllu économie ne penc mi ni muy doxe nii ci wàllu économie di ko doxe ci wàllu social di ko ci wàll di ko ci wàllu humanité loolu la ndaw ñi di seet nun koy soppee lu jëm ci wàllu politique it noonu ndax politique doonut groupe boo xam ne dañuy fexe ba falu chaîne yépp baax te pénc mi seen mbir baaxut ñu ne changement yooyu war naa am waaye aqaid yi mu jëm ci wàllu pas-pas rapporteur bi nee na euh, li nga xam ne moo ko war a yitteel yitteel mboolem ñu mbokkal atelier bi di aw góor aku jigéen te ñoom ñëpp seen compétence jëm ci wàllu googu changement yi ci wàllu nite changement yi ci wàllu social économique politique waaw ak gëm-gëm ak gëm-gëm mu ne yooyu dafa war a nekk système boo xam ne bii kulli lay doon chaamil lay doon chaamil mooy lan mooy day daj du ñu song côté bii bàyyi bee du ñu song bee bàyyi bii loolu mooy tax kon bu ñu ne dañu soppi pénc mi bu ñu ko bëggee soppi du doon coppat goo xam ne gii nee lay am moo tax loolu tam day am uslub uslub mooy système maanaam nan lañ koy jaare ba mën a àgg ci jubluwaay bi kon taxyir boobu nga xam ne bëgg nañ koo def te mooy soppat googu du mën a am mukk lu ñu xool yoon ñu koy jaare ndaw ñi ñooy wax xool yoon wiñ koy jaare ak itam nuñ koy defe buñ ko bëggee mu teel nuñ koy defe buñ bëggee mu yeex waaw ndax jamono jii nga xam ne ci lañu toll mënuñoo xëy xëy rek soppi ko ca ëllëg sa ndax du doon bouton bu ñu bës rek mu soppeeku waaw ne loolu daa wara doon loo xam ne day laaj ay jumtukaay waaw laaj ay ndëgërlaay laaj soppi may gisin yi ndax boo nekkee ak ngeen bokk la ngeen di soppi te bokku leen nu ngeen ko tuddee loola mën naa ñàkk soppeeku bu ngeen bokkee dara dangeen ngeen li seet li ngeen di def nu mu tudd joxe nañ ci benn misaal mooy adduna bi ñu ne dañuy xeex terroriste buñ ko définir rek mën naa am ñuy xeex loo xam ne mën a mën lay tudd te mën a mën a ku njëkk ne kii kum doon bu la sa morom ne mën a mën a saw yet dal moo tax coppat googu fokk mu am ci loolu la waa atelier un ci ay xalaat mbooloo mi yépp ndeysaan bi leen ko gaaralee ñu tàccu leen ne leen exact yéen fi ngeen laal foofu la fi ngeen okk foofu la fi ngeen wàcc foofu la fii xasan foofu la maanaam loolu terme xale yi lañ ñoo ko doon waxante ci saal bi saal bi ñépp kontaan tabarakallahu ñu ne euh, atelier deux ñëw leen atelier de ñu ne ñoom ñoom tam aqaidu taxyir la ñuy def mooy seen atelier luy aqaidu taxyir mooy kuy soppi dara day am looy gëm loola nga gëm li ngay soppi diiri ko nga jëme ko ca loola waaw ñu su ko defee foofu ñuy jaar ba dem ba dem ba dem ca ab cercle lay doon walla awrit lay doon woo xam ne dañ koy rëddal xale yi rëdd waaw mën naa am muy politique gu soppi waaw politique soppi yoo xam ne ci ñaar lañ koy teg rapporteur atelier numéro deux ñoom ñooy wax ñu ne ba ca jiitu mooy salaamatul gaaya maanaam nit bu bëggee tabax ab tabax te fo te joxuñu ko plan day nàpp nàppal rek day nàpp nàppal rek su noppee kër gi am ay roq yu ñu deful dara am roq yu matul dara am roq yeneen yeneen lu ne mu am ci kër gi moo tax salaamatul xaaya daf ci am solo nit ku am fu mu jëm léebaloon naa ko suñ mbàkki ci la ma ne ko till daa ànd ak doom ja di dox ñaari doomam ñuy dox di dox di dox ba jant bi so jenn doom ñu ne ko yaay mu ne mu ne ko daañ guddee de yaay de daañ guddee seen yaay ne leen fuñ jëm fuñ jëm maanaam buñ jëmoon teel ma xam mën nañoo guddi àgg buñ jëmoon Cees mën nañoo guddi àgg waaye comme jëmuñu fenn loolu lu am am solo la kuy changé mbaa ngay soppi mbaa ngay doxalum réew day am foo jëm ku amul foo jëm doo àgg fenn da ngay taxawaal rek tabarkalla moo tax changement boobu ak coppat yooyu kon salaamatul xaaye lay doon du doon fu ak parti ne kaay ñu dem fa wala fu am mbooloo ne kaay leen ñu dem fa waaye pénc mi yëpp ñooy ànd yëg ne fee dañ faa war a dem loolu lay benn bu ñaareel bi salaamatul wasila alwasila mooy jumtukaay bi ñuy yóbbu fi ñu bëgg a loolu itam daa war a leer buñ fi jógee jëm ci ma xam mbaakol te wat seretu mbaam bari ñu ak kenn du xam kañ la ñu dee dox waxi noppi waaye suñ fi jógoon ab kaar taxaw fuñ jëm ci ma xam ñu duggandoo mbooloom bokk fuñ jëm oto buñ song mu yóbbu leen maa fa ko tey bu juróom-ñaar nit daje woon ci gaar gaaras bi bu ñopp ñoom ñëpp ñu jël ci la ma xam mbaakool duñ fa yàgg waaye juróom-ñaar yoo xam ne kii Tëngéej la jëm kii Bargny la jëm kii cinquante la jëm kii Thiès la jëm kii Tivaouane la jëm kii euh, kii Mboro la jëm hmm? waaw kenn ka jëm Pire juróom-ñaar ñi buñ bokkee taxaw ci garage bi xanaa ñu ne cell kenn bañ wax dara buy ku wàcc rek fay al euh, euh, euh, bu xuloog yow keneen ko jàll bu taxawaat chauffeur bu xuloog moom kenn du xam ne muy mel tabarkàlla seen yoon woowu parce que rapporteur bu ne fal islaamu la yaatabiru taxyir gaaya bal wasila li iqamati amrillahi wa tanfisi xaakimiyatihi ñu ne coppat googu ñu bëgg a def ci penc bi du caageeg ne dañuy jël jumtukaay bi jaawale ko fañ jëm jël liñ jëm jaawale ko jumtukaay bi waaye dañ koy def noo xam ne dañuy taxawal pas-pas boo xam ne mooy ñun ñëpp ñu nangu di yàlla nu yilif su fekkee noonu la àgg fa danañu yomb mbokk yi saal bi daal di tàccuwaat deuxième atelier boobu troisième bi daal di yéeg rapporteur bi ñu ne ñoom lañ doon liggéey mooy insaan yu tax yiir maanaam niteel coppat gi niteel coppat gi ndax coppat gi du mën a nekk coppatug ay malaaka du mën a nekk coppatug ay ay ay jinne déedéet coppat gi coppatig nit lay doon te nit daan nitee waaw waaw su ko defee yi nga xam ne moom la ñuy waxante mu nekk lu nitee ñu sóob nit ñi ci lu nite jëm ak ñoom ci yoon woo xam ne woo baax la xel mu ko dégg nangu ko ñu ànd ñun ñëpp rapporteur bi may wax ñu ànd ñun ñëpp fas yéene doxal loo xam ne ku ko dégg xam ne lii lu nite la te itam lu nit man la waaw lu nit man la waaye soo ko degee ci loo xam ne lii duñu ko man lu nite nan jël benn affaire bu am solo saxaaba yi dañoo ànd ak sallallahu alayhi ñu def fatku màkk ñu def fatku mag nit ñi ñëw ci yonent bi di dugg ci lislaam am génn góor gu ñu wax abu xuhaafa abu xuhaafa dafa màggata màggat bopp bi béjjaaw yéen yi béjjaaw sikkim bi béjjaaw lépp weex abu xuwaafa doomu abubakar sadiq daal di jàpp ca loxo ba indi ko ci yonent ba ne ko góor gi dëggu ci lislaam keroog yonent ba wax fa lu lu nite waaw waaw hal laa tarakta hada cheikh fi baytihi hatta akuna ana allati aataytuhu fii ndeysaan daf ne daf ne lu teewoon nga bàyyi góor gi këram man mi ko féete ndaw ma fekk ci ko waaw loolu mooy loolu mooy nite gi nekk ci am changement yi pénc bi kuy waxtaan ak ñoom dangay waxtaan ak ñoom ci nit ak lu nite déggal wax yonent bi rek moom kat mooy yonent bi ci nit ñi la ko yàlla yónni waaye góor gi màggataay gi tax na yonent bi nangul ko mu toog këram alayhi salaam dem fekki ko fa mu nekk mbokk yi tomb nga noonu bu am solo ñett yooyu la rapporteur yi indi ci seen Euh, bi ñu demee ci atelier yi tabarakallahu atelier un dégg ngeen lañ indi te mooy ñi nga xam ne ñoo demoon ci kuliyatu taxyir atelier deux mooy ñu demoon ci kuliyatu euh, aqaidatu taxyir ñenn ñi dem ci insaniyatu taxyir su ko defee mbokk yi kuliyatu taxyir boobu nga xam ne ci la ñu toll di lu am solo atelier yi gaaral nañ li nga xam ne moom lañu indi ci jataay bi ñoom ñëpp ku ci ne gaaral nga li nga xam ne mooy sa xalaat seen atelier rapporteur bi ñëw daal ñu koy indil wax ñu ni nga xam ne euh, nun la deme ñëpp tàccu leen jaajëfal leen ndax ni nga xam ne moom lañuy def mbokk yi bi ñu ko defee nag ñoom ñëpp ñu daal ànd yëg nag ne kon kat ginnaaw def nañu li ñu def indi kenn ku nekk rapporteur yi indi <coughs> li nga xam ne moo jóge ca ñoom dañu daan ne ah kon kat ñun li nu gis bukk tëg liñ doon jàng ci ecole yi loolu moo juddoo ci jataay ba ah xale yi ne waaw ñu ne ndax ñun xale yi ñooy wax bi ñu jàngee ci wàllu communisme ni mu gisee changement bi ñu jàngee ci révolution française ni ñu gisee changement bi ñu gisee ci protocole ak sovioniens yooyu muy lenn ci juif yi waaye bi ñu gisee ci arab yi vraiment ñetti ñetti yëf yi yëpp benn bokku ceeg bi nga xam ne moom lañ dégg tey ci séminaire bi bi gars yi defee pause café lañ doon waxtaane loolu <laughs> bi xale yi defee pause café lañ doon waxtaane étudiants yi parce que étudiant ay intellectuel ñu mën a xalaat ñu gis ne ñoom yiñ doon doon proposé ci ay changement wax dëgg yàlla communiste yeeg socialiste yeeg libéraliste yeeg soxyonier yeeg al ñoom gis nañ ne changement yi nga xam ne moom lañ dégg tey ci séminaire bi bi ñu jëlee pause café bay werantee a waxtaan ñoom li ñu gis xaw naa wuuteeg lañ doon jàng ca ca seen euh, kulliya yaag ca seen faculté ya waaw léegi nag kon mbokk yi ñu tënkal xale yi séminaire bi séminaire bi ñu ne leen nañ déglu lislaam moom mu wax ñu changement yi nga xam ni moom la séentu xalaat yi leer na nañ ci kanam ndaw ñi waaw ci kanam ndaw ñi ñu bëgg leen a wax nag euh, dégginu lislaam ci coppat gi mu bëgg ci pénc mi coppat googu du benn mazhar siyaasiya mazhar siyaasiya mooy eh, loo xam ne benn slogan la bu penc mi wax rek ah nga xam ne aw gisinu benn groupe la walla mel ni mbooloo gisin ni mën naa jaxasoo mën naa indi leneen lu bokkut ak li mar a nekk changement yooyu du jóge rek ci benn yenn rapport yu jóge ci am réew jóge fële wax ne acca nañ ànd araamal yàlla araamal nan tëral wàllu sharia du loolu changement yi du benn texte boo xam ne day ñëw ñu ne rek lii moo war a tëdd ci pénc mi nan ko daal di soppee ni nu ko déggee te mooy changé jàpp ne dañuy daal di changé rek tëgg yi ñu doon tëgg ak wax yi ñu doon wax ci kaw pénc mi ndekete loolu warta nekk rek coppat yi kon coppat yi farida islamiya la lislaam moo nu ko laaj ndax lan ni penc muy dunde buñ ci jógut dana mujj ëpp ay loxo ginnaaw daa nar ëpp ay loxo nag jële fi li fi nekk day faratal lépp ndaw loo xam ne yaa ngi ci séminaire bi yaa ngi ci séminaire bi alquran nee na fala wa rabbika la yuminuuna xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum summa laa yajidu fi anfusihim xarajan mimma qadayta wa yusallimu taslima waaw mu ngoog wa ma xtalaftum fihi min shay fa hukmuhu ila llah dalikum allahu rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib xale yi daal di dégg laa jooju ñu firil leen ko ñoom ñépp ñu bokk ko dégg moo di penc mi daal kon nit ñi rawatina ndaw ñi war nañoo jóg jëlee li fi nekk réseaux sociaux yi li muy def yàqante beeg sujante bi ëppalante doole geeg ku nekk jàpp ne fa nga nekk foofa la ndaw ñi ne daal vraiment loolu nag war nañ cee jóg ñoom pour dindi ko hmm? waaw léegi nag ñoom ñépp kenn ku ci nekk daal di jot sa attestation waaw ñu defal ci attestation bi wa kasalika ja'alnakum ummatan wasata li takunu shuhada ala nnas wa yakunu rasul wa yakunu wa yakuna rasulu alaykum shahida mbokk yi xale yi daal di jël seen attestation yooyu luñ bind ci association bi dañ cee bind ne kadalika jaalnaakum def nañ leen yéen ñi fekke séminaire bi ummatan wasata ngeen di xeet wu digg doomu waaw yéen ñi fekke séminaire bi yéen da ngeen nekk xeet wu digg doomu bu leen di bañ ba mu ëpp bu leen di bëgg ba mu ëpp bu leen di ër bu leen di ërte nit bu leen parparloo na ngeen nekk ummatan wasata waaw ummatan wasata moom la léebaloon mbokk ya nekkoon ci grande mosquée ndeysaan bañ ñu mayee kenn ku nekk ñaari minute may leen man de kon suma ñaari minute yi damay wax jigéen ñi ne leen ndax xam ngeen soom bi ñu ne waaw mu ne soom bi day am suukar day am xorom lu ci ëpp yàqu soom ba ñu ne waa ma leen loolu mooy ummatan wasata li takunu ngir ngeen nekk yéen ñi ñi fekk séminaire bi shuhada ala nnaas yóbbu lii ngeen dégg ci nit ñi wa yakuna rasulu aleykum shahida yonent bi alayhi salatu wasalaam nekk seen euh, seen encadreur encad encadré leen ngeen mën a defar pénc bi seet tet xale yi jëm seen attestation tabarakallahu fas yéene dem ci seeni mbokk nag waaw ndax doxal loolu waaw ndax doxal loolu mbokk yi am na ñoo xam ne jàpp nañ nekkoon jot nañ seen attestation waaw li ci def daal mooy ndaw ñi jot ñëpp seen attestation yi bu sélection jotee ñëpp duñu dem moo tax foofu dafa am lu am solo lu fi am mooy ixtiyaaru zawil ahliya maanaam buñ bëggee changer pénc mi li fi nekk te néexunu te bëgg mu soppeeku dañuy tànn xale yi nekkoon ci séminaire bi selon compétence yi nga xam ne am na ci ñoom waaw compétence su li nga xam ni nekk na ci ci xale yi foofu laa tolloog ñoom attesté nañu leen mais am na liggéey bu ñu leen di sant liggéey boobu dafa am ay ay tànn tànn nga peut-être concours lay doon wala daal peut-être leneen lay doon su ngeen bëggee xam sibitu séminaire bi tànn googu ak sélection yi da ngeen nuy dàkk ëllëg ci waxtu wii tabarakallahu ci Sud FM seen rajo 98 point 5 bu leen neexee ci kanam jot ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 88 628 98 98 ngeen bës 2 nu ànd ci suñu jotaay bi nga xam ne day am lundi di am mardi di tàmbali 8 heures di jeex 10 heures sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ne taxaw yor seen i kayit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar ci waat firiñ fàncal ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu sponsor bi yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos da yàlla na doon coxtaan moo seen mbokk Alioune Sall in wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu